jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw nuñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam modi moo seen chronique inshallah allah ajjuma ji ñu jëm lañuy inaugurer mosquée masalikul Jinaan mu nekk mbekté ci képp kuy doomu Sénégal mu nekk mbekté ci umma islamique bi ndaxte loolu ñu jëmmal fii ci digg ndakaaru te nag taalibe yi xar ci seen tànk tubéy ba bëgg-bëggu sëriñ bi ñu matale ko war na tax ñoom ay jàngat yu xóot yu mën a def ci mbir moomu Dakar Matin moo di nit ñi bu ñu dëggoo gëm seen bopp lu ñu song daan ko philosophie murit bu ñuy wax may wax fii ne buñ ci sukkandiku woon gëm suñu bopp lu bare bare man nañ ko baña dem di yalwaani waaye jëmmal ko suñu bopp ndaxte ci ngëm-ngëm pas-pas lañu taxaw def li ñuy def ba jëmmal masalikul jilan kon gàcce ngaalaama képp ku ci dugal sa dërëm ngir mbir mi mën a sotti xaaruñu ci benn tubaab kon ñi nga xam ne ñoo yor réew mi war nañoo xaltuwaat bu baax a baax xool na doomu sénégalais yi bu ñu songee mbir mu nekk lu dëgg amul njuuj njaaj amul sàcc xaalis nekk ngëm-ngëm mën nañ koo daan tey jii sëriñ muntaxa mbàkke nam na def université te legi mu soti inshallah allah ca kanam da ngay def liggéey bu muccu ayib ken fekku len ci talibe yi ñoy jël sen koppar di ko ci duggal la yag di wax ne mouride yi xaar ñu dara ci nguur gi Dakar matin duñ bëgg defal sen bop mën nañ ko defal sen bop kon gàcce ngalama gàcce ngalama am nañu ngëm-ngëm ak pas-pas lumata lu mata suluñe la xamit ne projet de société mën na ci juddu jur njariñ sëñ muntaxa suñu mam ju baax fokogis mi ngi dakaru ndaysan foko gis ak reja foko gis ak talibé ga mom momi la donte Macky Sall nañ ko gu metti lol Touba ak Jurbel ba mu ñëwé dem diko ko ci Touba yekati na ay dalal xelam bu baakha baakha baax ba Macky di don donte élection présidentielle gën ko fa duma duma yu metti lol mu dalal xelam bu baakha baakha baakha baax ni taxawaayu mak kilifa war mengok waye de amna lo xamne xam ne sakku nako du ben yoon du ñaar yoon du ñetti yoon ci président Macky Sall moy lan mu bayyi mbay touré mi nga xamné danaka taxawayam dakar matin cioti seigne muntaha xam nañ ko talibem la sa bu ko waxon Macky Sall rek président de la république mëna ko seigne bi de lolu sotina seigne bi nak xamna warna sax ndax té dem na ci bes ba mbay touré japp na ne genn bi mom jeexna lolu yep ndekete yo Macky Sall lum la wax rek da lay njuuy ndax señ Sidi Makhtar ñaan nako won mu bayyi Karim Wad du ben yoon du ñaar yoon du ñett yoon ba sax dogo ci won na dootu ko ñaan dara ci loolu ba mu xoolee nu mu ko war a génne la ko génne biit génne bi mi ko ci lan désir ak volonté donte dig na ko bi du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon xalif bi nag sëñ muntaxa mbàkke boo ñëwee ca masalikul jilaan dina yow Rele japp rek ne lu kilifa gu mag gogu don wax di sëriñ khat mbàkke ne nit deug ay kaddom day mengo ak jëfam ku say du mengo ak say jëf nak jappal gor ngok digge nañ lol lol du benn du ñaar génne ki nga xamne ne mbay touré ak ñu maan ak so xolé sax ay avocat dugal nañ demande de libération réew mi le la soxla dañoo sonn ci tëj ci justice boo xam ne rek saa boo journal bu mënta à la une justice nga ciy dégg ñuy rafet lu bàyyi ñu di ñaan président de la république yàlla na say désir ak say volonté tax sa xel dellu nga ne bàyyi ñoom ñi des ndax leneen fitna loolu ay kàddu loo xam ne waroon nañ ko yëkkati pour xel yi dellu siwaat ñu pacifier réew mi justice tal leneen justice ngelawaay topp leen trafiquant de drogue yi bàyyi règlement de compte politique yi ñuy jël toujours justice muy doon bras armé bi amul njariñ day gàcceel Sénégal. Dakar Matin. ci loolu wàllu justice lay tàbbi laata ma ciy tàbbi dama leen di dëgtal kàddu Qui nga xamne mo ministre de l'économie et des finances Amadou Ba ndax dama fassiyene 94 wax ci 94 milliards yi moom ba mu ci pencum ndaw cadre mi am na kàddu yoo xam ne ci di leral ñu ko. Dakar Matin. le 9 février 2012. après plusieurs années de contestation tribunal décidé que ñaay moomu daf koy cassé en 2012 cela veut dire quoi cela veut dire que lañ ci defoon ba booba daanaka jeex na loolu tribunal wax ci cour d'appel héritier yi am kuñu gissel muy Sofico jaay ko créance dans la zone barème bi mi tourner autour de 25 000 francs qui est le barème indicatif ne xam nañ ni y a une commission de conciliation buy dajé xol nu ñuy ajuster barème bobu pour éviter ñu dem tribunal sinon c'est le juge des expropriations qui décide loolu aussi moy li nga xam ni yoon tëral na ko bi Sofico amee homologation boobu tribunal cassé décision bële kenn mënatul contester ni état du Sénégal yoreel héritier impossible bi tribunal joxe expert pour évaluer ko évaluation bi expert bi ça autour de 250 milliards tribunal moo ko expert bi bon rapport commission de conciliation bu montant bu li expert bi wax da état quelle que soit la forme au-delà des personnes et c'est sur ces entrées que la procédure de paiement a démarré. Procédure de paiement, crédit qui est géré, c'est au niveau de la direction des domaines. C'est pour dire que la procédure est tout à fait claire, la procédure est tout à fait légale, la procédure est tout à fait transparente. La gouvernance voulue et décidée par le président Macky Sall, c'est une gouvernance vertueuse, c'est une gouvernance transparente. Dakar Matin. way way deg ngeen nu mu waxe nu mu simple nu mu leeree ci bop nit ñi bok nu mu ci bopam mom waye nak menes na am ay laaj yu am solo Yo xamne ne mi ngi jëm ci walu li nga xamne ne 94 milliards yi ciow li bari na lol dem nañ ci ba samp fi commission parlementaire ne yaay dañuy xol lu ñuy sétal ak lu ñuy wax commission parlementaire du setal ken presse bi conférence de presse du setal ken Amadou Ba lu mu wax lu la na kay ku ak sa nañ Ousmane Sonko bind inspection générale d'État mo bind ofnak mo bind plainte procureur mo bindat benen plainte des juges d'instruction kon kay bu nekkee ne ñii jàkkaarloog moom jàpp nañ ne ousmane sonko def na ci lu tollu ci tarfatul ayni la ilaha illallah sénégalais yépp xam nañ ne gént gu gën a rëy nguur gi di ko gént fi mu nekk nii mooy xool nu muy dugalee ousmane sonko kaso ousmane sonko moo takal ay nit waaye kiñ taqal xanaa war naa setal boppam te nag justice rek mooy setal rapport yi yëpp ñuy def ci organe de contrôle yi bu ko defee ba noppi dañ koy jébbal justice buñ ko jébbalee justice justice mooy atté waaye nag wax fa dëgg neex yàlla ñu ngi xaar suñu justice bi nag mu leeral askanu Sénégal 94 milliards dafa bari ñuy miin na amul ñuy miin na Sonko di dugg loolu yëpp boo leen amee preuve yu toll noonu doo leen bàyyi di tànqal nit ñi doo leen dem yóbbu mbir mi ci mbaxana fu mu nekkee benn ñu àtte leen mu jeex ku nekk xam fan la dëgg gi féete waaye ba tey jii ba ni yàlla tey jii nañ ko wax te dee benn ñaari plainte fi am te ñaari yëpp. Dakar Matin. Ousmane Sonko ko def. commission parlementaire mënul seetal deru kenn. commission parlementaire mënul seetal deru kenn loolu faw mu leer te ñëpp xamee ko noonu parce que nag mun ñoo taxaw di tuur la ndëm nit ñi di wax ne way commission parlementaire seetal na nit ñi maître Assane Diomba Ndiaye. da cee wax lu leer loo xam ne baax na comme da ko bind ci nasaraan ñu dellu si waat ci nee na ministre de l'économie des finance moom ba mu demee ci assemblée nationale nangu ne ne créance su ñi waroon donn Sofico moo ko jënd muy procédure bu normal nguurug Sénégal commencé di fay bañ commencé di fay finalement justice bi homologué wul loolu yéen a ngi dégg Amadou Ba mel mii di ko wax kon kay comme justice bi kase na paiement yooyu lu nekkoon yoon te nekk dëgg mooy ñu xam ñaata lañ jot a génn cay koppar te kon état bi lu mu joxe noonu tegewul ci yoon il faut ñu xool justice lan lay dogal ci loolu ñaata ci koppar la état bu Sénégal génne ci quatre-vingt-quatorze milliards yu ñuy wax lu tax. justice bi refusé na do homologuer transaction bobu rachat de créance bi du ko nangu ñu né 3 milliards 500 millions lañu génné Dakar Matin. buñu ñu né ñi wara a donn jotagun koppar yooyu la fan la xaalis bi duggu légui ay question yu simple la lettre de confort bi ñuy wax 94 milliards yoy ñuy wax ay banque ñoo ko def état bi génné na wala génnul ay banque ko def. <laughs> ay bank ko def de wax naa ne li fim nek mbir mi yep yote lo ndank ndank rek way li nek deug ba nek deug modi presse conférence euh, commission parlementaire setalul kenn waye nak nañu japp ne ñun en matière de bonne gouvernance mom jappal ne xana nga nek opposition waye lepp lu jëm ci nguur gi mom justice du ci yey du ci yab Dakar matin sawar lol, ci tej ay nit man nako ko lu jëm ci walu bonne gouvernance takal ay nit ay adversaire politique tej len waaye bu nekké ne ño bokku lang bokku bor di damalante milliards gën du ci dégg kenn musuma dégg justice wax ci yey ci wala mu yab ci kon ñun lu ñuy sakku modi ñu léral mbir mi te xam nga damay wax fi ne Sénégal dégg Amadou Ba muy di credo président de la république bu Sall euh, xam nañ ne euh, gouvernance sobre vertueuse la ak transparence ma suis le rek grand projet yi nga xam ne am fi ko <laughs> mu dayo lool ma lool dama projet 2013 ñëwuñu fii ne dañuy def ay visa d'entrée jox ko benn société bu tudd Schneider ivoirienne Big Togo muy valeur u ñaata treize milliards marché gré à gré treize milliards marché gré à gré ba tey jii kenn xamul mbir yi fan la mujjee léeb ak luppoon ma continuer de 2013 ba tey jii autoroute Diamniadio AIBD joxuñu ko Eiffage société française mu toll ci quatre-vingt-quinze milliards trois cent ba tey jii nit ñaa ngi wax mais kenn mënu la ci leeral lu toll ci bën bënu puso ma continuer 2013 centre de conférence Abdou Diouf joxuñu ko benn société turque Souman valeur u ñaata cinquante-neuf milliards six cent millions. Dakar Matin. budget bi dañoo waxoon na quarante-cinq milliards deux cent la woon. ñuy dema dema dem ba amadou ba ci boppam moo demoon ne yegg na ci 59,6 milliards de francs CFA ne woy dafa am yokak yuñ ci yokk ak ah yu bare bari ma leen wax rek ay marché yu doy waar cité de l'émergence xëy 2014 joko adawa du société marocaine marché gré à gré 45 milliards de francs CFA damay wax rek bu wax transparence mu tardé ba tey ji munta pare lolo indi won adawa momu lan joxon 10000 hectares ya fele ma demone def reportage ci fouta dañu anule, annuler bama defé reportage bi ba nopi ciow li bari mbokku al yi jog di wax na Macky Sall bu doone alpular timi du foutanke ndax gemul souf fa la mujjé dafa mujjé génn décret annuler ko ba tey ji c'était de l'emergence ngi ni gisaguma ku fa dekk ñu continuer 2013 2014 bo ñëwé port autonome de Dakar Bolloré société française Necotrans société française joxuñu une concession terminal vraquier ak bu li nga modi ko Bolloré lool yépp ñu jox len ko ci valeur bo ma nga toll ci 64 milliards de francs CFA autoroute Ila Touba damay lim rek joxuñu ko Washing, Chine marché gré à gré 416 milliards. Dakar Matin. te bo laajee ñi liggéey deug deug milliards pour na régler problème 416 milliards gré à gré avons ñu en 2016 conception production carte d'identité biométrique kun ko jox Iris entreprise malaisienne Nous avons nekk 50 milliards gré à gré ba express régional. Eiffage yàppi soo waxee ñu ne am na société sénégalaise ci liggéey kenn xamul ñaata la ñoom ci lu ñu wax rek buñ ci sukkandikoo muy mille deux cent milliards ñoom te weesu na ko di dem te nee naa leen ku guddul fan doo gis terre bi. boo totaliser loolu rek mille neuf cent quarante trois milliards yoo xam ne marché la gré à gré te gisoo ci benn société sénégalaise da nga leen di lim ay coppet coppet yu ñu leen di jox kon il faut ñu arrêter. di foog ne man nañu nax sénégalais yi te yag na len wax ko jappé dof mi ngi wut garab yim len faje te garab jafé lol nak du reen du pendax du comprimé wër nañ ba son te nak dafa mbir yo xamné ne war nañ ko waxtané sénégalais yi ma lay watal ne dañu yeb askanu sénégal yabel gu metti metti metti luy ndey fan lañu tek ñom crise de respectabilité mo am sénégal lillaay war a suuli sénégalais yewu len yewu len yewu len ngeen xippi seen beut xol deglu bu baax lima len di wax lan moy ndeyu ñu xey suba tel dem ci ay élection locale voter élection bi mandat bi di 5 ans ñu ne juromi at nga ñëwaat bo bëggee nga laajaat bu lay joxaat jox la bu la dul joxaat dul la jox jox keneen ndax nak mbir mi jitul am maay jiitu jiitul boo ko demal bo juumee taxaw ñu wax la yow ñu jox la juróomi atu yalla ñom ñi def conspiration politicienne dem teju ci dialogue politique Dakar Matin xol bam neex la dal ne reporter nañ élection yi ba 2020 manam ñom s'en coobare bop 350 partis politiques yépp bo additionné seeni militants matuñu 2 millions fichier bi mi ngi ci 6 millions et poussière 4 millions de sénégalais yu bokul ci parti politique yi nak di voté fulen neex yeen ngeen tëju sen bir dialogue politique nga way d'accord kon nañu dakk élection yi yokal élu yi 1 an yo xamné ne tegu leen ko fenn yabaate mënul weesu loolu est-ce que laaj ngeen askanu Sénégal ndax bëgg nañ ko wala déet est-ce que askanu Sénégal doyalul ci ñi doyalul ci élu locaux yi ngeen def seen conspiration daal yéen classe politique bi dàqaat élection yi fas timit tamit dàqaat élection législative yi ñëw loolu yépp ñi koy def laaju ñu askan wi c'est Macky Sall ba muy woote dialogue bi lépp benn pexe rek la amoon nu ñuy randalee élection locale yi te élection législative yi dañ koy randalaat du am ndax fi mu nekk nii problème mu Sénégal yi sax tëjul boppam xam nga lu tëj boppam nu muy lewalee troisième mandat ni muy lewalee troisième mandat moo nekk ci boppam lépp lu muy damyee di ko plan pour am troisième mandat la na sax nocc bi xam nga moom sax wax na ko euh, ci ouverture dialogue bi mu ne xam nga tollatuma fu may njuuj njaajee amatuma dara lu ma soxla dalee leen ni nax de da leen ni nelawal troisième mandat lay wër te li ci kanam raw li bët mais yabaate mënul weesu ngeen ñëw jël délibérément décision yok li nga xamne modi mandat élu lako yi mais de démocratie app la ba app fat ngeen ko tek fenn dulul sen ciobara bop ak sen bëgg bëgg bop lolou tax man da ngeen yeb askan di jéxal ak kaddu al maktoum cheikh ahmed tidiane si dafa am lum doon wax na dañ ko doon wax mais dindil nit ñooñu ma wax nga xol yenn xeetu nit ñi bu ñuy wax rek nga xool seen jëm ak lañuy wax nu mu ñaawee den sant den gërëm di leen dig dajé seen beneen chronique seen site dakar dakarmatin.com inshallah dakar matin yalla ko yonenti wattu la wanitu mag ñu bon ñi bu ñu sañoon ñepp di bandi comme ñoom ni ko seen mantu yu rëy ak seen bot yu rafet yi ak seen caqi wurus yi ak seen kaala yi bu ñuy jaar ci mbedd mi nit ñi ragal leen di leen rukkol ñépp ay bandi grand chemin lañu ni ko bu ñu sañoon nag ñépp di bandi comme ñoom mu ni ko xam nga ni lii génn ci seen gémmiñ ci lu ñaaw dootul kàddu lii génn ci seen gémmiñ ci lu ñaaw dootul kaddu mu ne ko meññentu mbañeel ni ci seen dënn lañuy ñu mu ne ko te garab ya ko sax ya ko meññ ñu nga ci dënn ya waaw Dakar Matin